may permettre ma massawu waa Ngor euh, par rapport li nga xam ne mi ngi fay am depuis quelques semaine ba léegi te ñu euh, dégg ci démb ni am na ay bakken yu farot mu nekk loo xamante ne ni dañ koy naxarlu di ko ñaawlu en même temps te di jaale euh, famille ak waa ñi dëkk Ngor yépp ak communauté lébu di leen jaale ñooñu nga xam ne ni ñoo fa génne àdduna ci li nga xam ne ni mënoon nañ ko éviter parce que maa ngi dégg démb aussi que le président de la République Macky Sall recevoir na euh, waa Ngor ñenn ci autorités yi waxtaan ak ñoom ba trouver une solution mais c'est bien dommage parce que euh, loolu la waroon loolu ci loolu la ñu waroon commencer euh, su fekkee ne dafa am benn différent bu am entre des sénégalies ou bien entre des Sénégalais et et et une institution comme lu mel ni la gendarmerie Euh, je pense que euh, jaadu na euh, même su fekkee ne président de la république àdduwul ñu ko fay représenté wala le ministre de l'intérieur ñu jóg taxaw régler ko balaa lii di ci lii di ci am mais nag loolu du lu ñu bett ci nguur gi nga xam ne nii moo fi nekk donc loolu en même temps aussi daf ñuy permettre ñu poser quelques questions ana le médiateur de la république lan mooy rôle am ana le haut conseil du dialogue social lan mooy rôle am ana CSE lan mooy seen rôle donc dafay wane rek ne euh, euh, institution yi nga xam ne nii ñoo war a dox pour euh, éviter yenn situation yu doxuñu et président de la république te invite waxtaan na ak ñoom ba trouver une solution mais il aurait dû le faire depuis très longtemps c'est bien dommage. parce que dafa mel ni affaire ngor bi au début dañu ko banaliser jàppee ko une révolte des population bu ñu waroon a mate yow bu ma la dégloo bu baax jàpp nga ne. mënoon nañu um, fay affaire bi parce que ñoom li ñuy réclamer euh, mooy euh, lycée waaye tamit la construction d'une brigade de gendarmerie aussi est une priorité sécuritaire euh, numéro un est-ce que solution bi ñu bi ñu trouvé maanaam couper la la la poire en en en deux est-ce que mën na nekk une solution viable. xam nga lu toll ni nga ko wax ñu ne amul lycée. c'est quand même très grave Ngor c'est pas une cité nouvelle ça ne yàgg na am na ñu fay nekk depuis des années seeni doom di fa màggee pourquoi liggéeyuñu pourquoi état bi tegul jéego pour def fa lycée su amoon lycée xëy na lii du am ba Macky Sall le président de la République di di di ut ay solution euh, xam xamu nuñ koy waxee loolu c'est du taf yëngal pour ne pas paraphraser euh, euh, certaines personnes mais loolu euh, jaaduwul dafay wane rek seen absence de vision ak seen absence de volonté politique on est au vingt-et-unième siècle Ngor lycée amu fa c'est extrêmement grave waruñu woon tollu fii et beneen bi su ay nit jógee Sénégalais yi tal nañu leneen lu dul jóg di sànni ay xeer ak ay gendarme suñu jógee ba di contester ñu war leen jege pour xam problème bi lan la et moi je je suivais l'actualité le maire dégg naa ko mu wax plusieurs fois et le président de la République il est au Sénégal fan la nekk ou bien il est en Gambie en euh, Mauritanie wala fan la nekk ou bien peut-être qu'il suit pas l'actualité nationale ou bien ñu ko préfet bi ko nekkal foofu du ko wax li am. sénégalais yi su jógee jóguñu parce que dañu am envie jog c'est parce que dañu jóg xeex seeni droit donc am na loo xamante ni ni moom moo waroon anticiper ba lii am du am yàlla nag moom mooy dogal waaye bakken yi rot mënoon nañ ko éviter mënoon nañ ko éviter à mon sens donte xam nañ ne suñu borom lu mu namm rek kenn mënu ci dara mooy am waaye nag léeg-léeg boo jëlee. Euh, boo amee taxawaay boo xamante ne nii de de de de prévention d'anticipation am loo xam ne nii xel ne yàlla mën na la ci suturaal